mais euh, le mandataire le mandataire de Karim Wade Maguette dafa toog fii ah. mu wax lu lu lu intéressant mhm. euh, Karim Wade le 17 le produire euh, décret bi pour acter sa renonciation le 17 le génn le 17 boobu le produire le document montrant qu'il a perdu sa nationalité sénégalaise conseil statué en dernier lieu Euh, ci recours yi ñu déposé le 20. le 20 lui il dit que le conseil devait tenir compte du dépôt du dossier le 17 et donc le conseil dafa waroon a valider tout simplement la candidature de de de de Karim parce que jour bi conseil bi di statuer fekk na jot document bi jot na ko document renonciation bi mais loolu yëpp garaawul mais soxna si. Euh, nit na koy demande mu dindi ci boppam li mu moom li mu nekk. dafa diis. ah dafa diis man xaw ma Karim Wade naka la mën a defee loolu sax. dafa diis loolu dara jaar ko ci àdduna. moi je vis sa peine ah. je vis sa peine ah. cest à yow nga judd sa yaay tudd Viviane Vert ok ku la xool xam ni sénégalais et puis man li ma ci jaaxal ñii di wax ñëpp. Macky Sall am na phrase choc bu neex bu mu waxoon ci benn interview Jeune Afrique est-ce que du man sax maa ko interview ba woon na ko affaire Karim Wade mun ma Karim Wade même bu xeesee Sénégalais la kenn gënu ko nekk Sénégalais même si Karim Wade est de teint clair il n'en est pas moins Sénégalais premier boobu dafa neex. il a toujours agi en tant que Sénégalais loolu Macky Sall moo ko wax mais ñeneen ñi ñuy xataraayu ñëpp temps yi Ablaye nekkee ci nguur gi mais boo tuddee Karim Wade danaan la moo gën a nekk Sénégal yëpp Karim Meïssa Wade la léegi lan moo tax papaam nekk génn ci nguur gi rek Karim nekkatul Sénégal bref man de vraiment et puis li ko dal le conseil constitutionnel c'est gouré loolu nga bëgg a wax ba pare li ko dal li ko dal dafa dafa ëpp. dafa ëpp kay dafa ëpp xam nga tax dafa ëpp. yow ñëw nga sa papa génn ci nguur gi ñu jël la benn tribunal bu tudd CREI ñëw juge la tribunal bu la ca nekk ñëpp xam nañ ko. mu dem conseil de droits de l'homme des nations unies gars yi jox ko dëgg na ko liñ la jugé baaxul amoon droit à la défense ñu condamné Sénégal pour loolu ok ñu génne la kaso dugal la ci avion ñu heurtal la nga génne la réew mi la même jour nga génn réew mi waaw dem ba léegi mënatoo ñëw ci réew mi 2017 nga bëgg a présenter élection bëgg ñëw ñu ne nono contrainte par corps maanaam booy teg sa tànk ci aéroport bi rek ñu jël dugal la kaso nga rete élection boobu toogaat ñu ni dialogue national nga ñëw yaay def dialogue bi daal di regle problème yi daal di waa léegi indi nañ régler nañ problème bi léegi tout le monde est candidat et cetera ndeysaan nga commencé di préparer wu def say yëf yëpp ñun la nonciation depuis le 26 octobre nga def sa déclaration yëpp perte nationalité français tout sax ñëw ñu la noo yow mënoo nekk candidat ëpp na nag de. mais dafa am pro euh, critique bu gars yi di di di di porter Karim Wade. Hmm. pourquoi il veut mener un combat par procuration pourquoi il ne vient pas. nu muy pour mener le combat contrainte par corps bi moo tax mënul woon ñëw. mais contrainte par corps bi. c'est réglé loolu c'est réglé dans le dialogue. non non non c'était avant c'est de contrainte par corps <laughs> bi. moo ko teree ñëw ah, mais quest mais avant mënul woon ñëw. c'est aussi simple que ça mënu woon ñëw di Karim ndeysaan xoolal jour bi muy dem li mu bind maa ngi regretté ni ma demee bëggoon naa dem sax Touba pour nuyu xalif général des Mourides mais mënuma ko ndax conditions yi ñu ma yóbboo waaw boobu rek mënul ñëw ñëw. mais est-ce que Karim Wade jar na ñu manœuvre yi ñuy def pour reporter. non loolu beneen xam nga ñaari affaires yu wuute la man en tant que juriste. dama wax ni ma gisee ci droit ci droit bu fekkee ni vraiment da nga bëgg a ci droit conseil constitutionnel nag am nañ droit am seen regard man droit laa jàng doctorat troisième cycle droit laa am donc droit dama koo xam dama ni conditions yi ni mu demee Karim Wade dafa doon nekk candidat man loolu laa gëm même bu dul même boo bàyyee procédure yëpp bàyyi déclaration ba yëpp boo xoolee esprit loi bi laa wax waxuma lettre bi parce que lettre bi mooy da nga xam ne ñi xamul droit maanaam nulaar yi moom la ñuy wax mais esprit bi mooy li ko lal loolu mooy xam-xam bi mooy mbóot bi Karim bàyyiwul nationalité bi mu juddoo dem jëli beneen nationalité deful loolu dafa juddu nekk français de fait nekk français de facto maanaam du nationalité bu mu jëli. un français de lait. nationalité bu mu donn la c'est aussi simple que